salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar barakatu allazi wujuud wal xidam xad wajaba lana dunil xidam bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wala udwaana illa ala zalimin mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala di am mbégte bu baax a baax di dajeeg yéen ci jotaay bu tedd bi ci pénc mu tedd bi ci bis bu tedd bi di amaat mbégte bu baax a baax di dajeeg yéen ci jotaay boo xam ne daairat xuratul ayn bi dajalee sëti Serigne Chouaïbou Mbacké ibnu Cheikhul Xadim radiallahu anhuma ñoo koy amal bu safar tero muy loo xam ne kenn sikki sàkk wut ne Cheikhul Xadim radiallahu anhu dana si bëgg lool ndax bis bee di ñëw muy ña fukki fan ak juróom-ñett ci safar muy bis bu tedd ca moom yow nga koy waajale lu am solo lii dana ci kontaan euh, bis bii nag dañ koo darajaale njabootug sëriñ ma sàmba Faati moom sëriñ bu soobe ab mbooloo mu walla délégation bu am solo mu ngi ci sama càmmoñ bàyyi ko ca kër googa ñu war a waxtaane it lu am solo lu soxal ñépp muy ca bitim réew ba ci biir réew mi di tomb boo xam ne ñu ngi koy woowee te tasarrufatun yajibu an turajaa di xeeti doxaliin wala xeeti jëfin yoo xam ne mën na am dëppoowut ak na la war a am muy loo xam ne day jar a bàyyi xel day jar soppi muy bu ñu seetloo bu baax a baax toujours ñu dégg ca bitim réew xeeti mbooloo yoo xam ne day sosu ci turu lislaam di jëf ay jëfin yoo xam ne kenn sikki sàkkawul ne jëf yu dàqoonteeg lislaam la buñ ko misaalee rek ci Daesh ñëpp a ngi koy dégg fu ci ne buñ ko misaalee ci Boko Haram ñëpp a ngi koy dégg ak benn xaraka jihaadiya bu nekk ca réewum suumaan def jëfin yoo xamante ni kenn wérantewul ni daxu daxonte nag njàngaleem lislaam su ñëwee ci biir réew mi danga fekk yoo xamante day xaw a doy waar yenn saa yi nga dégg ku génn téere wax ca loo xamante ni day yéeme lool attaqué direct ay nit ñoo xam ne seeni njaboot ñi ngi fi nga wax leen loo xam ne lu xaw a doy waar lay nekk bu ñu ñëwee sax fi ñu gën a jege mu suñu dëkk bu sell bi dëkkub Cheikhul Xadim radiyallahu anhu léeg la ñu seetlu fi yoo xamante ni mën naa am bu ñu ko bàyyi woon xel gën caa dana gën a dana gën a am solo kon daal tomb yu yaatu yaatu la wala tomb yaatu yaatu la xam naa sëriñ bi fi muy gën a joyal waxtaanam jéeme mooy li fi ñu gën a jege rek muy ci dëkk bu sell bi dëkku Seexul Xadim radiyallahu an sëriñ bii nag daanaka jërta jërta xamle kuñ miin ci ndaje xam-xam la ku ku ci jàmbaare la ñu koy wax sëriñ bu soow Cumbuleen dañuy bañ a guddal rek xam naa bu defee waxtaan wi ba pare njabootuk sëriñ Masamba Faati danañ fi jël kàddu sëriñ naa bismillah bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin wa alaa aalihi wa ashaabihi ajmaiin wa man tabiahum bi ixsaanin ilaa yawmi ddiin bokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullaahi taalaa wa barakaatu ginnaaw nuyoo bu sell boobu di nuyoo jullit ak mbokkam di nuyoo bi ñu sunu borom subhaanahu wa tànnal ñu ngi leen di ndokkeel ci jataay bu tedd bii ci néegub yàlla bii ñu nekk ci pàkkub xam-xam ci weer wu tedd wi di safarul xayr di jiital ci nuyoo boobu ak ziyaar boobu kuréel bi nga xam ne mooy qurratul ayn muy daaira bi nga xam ne ñooy saytu liggéey bi tey mbooloo mi lëkkale sëti sëriñ Chouaïbou Mbacké jaare ko ci sëriñ Abou Mbacké al imam ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci jëf ji di ñaan yàlla yàlla yàlla na yàlla nangu lépp seenu jubluwaay yàlla na leen ko yàlla defal ngërëm li ngeen ci sàkku di ngërëmul Cheikh al Xadim radiallahu anhu yàlla na leen ci yàlla jotale te jotale ci bépp jullit di nuyu sama kilifa yi nga xam ne ñoom laa bokkal jataay bi te nga xam na ñoom lañu ñu tudde bis bi muy sëriñ ma sàmba Faati ak njabootam toog di suñu kilifa ngi leen di ziar kon mën na maa wax ne bis bi ñun lañ ko tuddee sëriñ xaadim ñi ngi rafetlu kàddu yi nga yëkkati ci noonu nga tënkee xew-xew yooyu nga xam ne mi ngi xew ci lislaam man nga ko wax sax ci barab boo xam ne ñu bari duñ ko bàyyi xel ndax léegi ni jamono tëddee daanaka bu fekkee yàlla nattuwu la wala yàlla baaxewu la nga def ab jàngalekat xew-xew yu baree bari du doon sa yitte te ab jullit yit jullit ñëpp dañoo war a doon yitteem ak fu ñu mën a nekk sëriñ Abdul Qadir Mbàkke mu baax ma radiyallahu anhu wax na ni bu masaana julli fajar ba noppi su wëlbatikoo sàppe si day wax ne ku fi dégg mbokkum jullit mu nekk ci fitna wala ay jafe-jafe na ko wax ñu defal ko ñaan ab jullit loolu moo war a doon taxawaayam gis nga xarakaat yi mu tudd ay jullit lañ ñenn ñi dañoo euh, sosu ci turu lislaam waaye seeni jëfin ak seeni doxiin wute naa njàngaleem lislaam moo tax mawdu bi bi ñu ko tànnee mbokk yi tànn ko tuddee ko ni ñu ko tudde te mooy ay jëfin wala ay doxalin yoo xam ne lu ñu war a deltu ginnaaw la ndax wute naag la war a am loolu lu yaatu la àdduna bépp mi ngi ci biir waaye li ñu gën a jege nag te gën a yitteel nga xam ne mooy li sunu pegg te loo ci wax ñu tegandoo ko bët loola day mel ne lafta intibaahiya lay doon ku doon nelaw nga yee ko moo xam ne moom mi ngi woon ci ay nelaw mu yeewu nag ni mu wàcce ba agsi ci dëkk bii di tuubaa al Mahrusa bu ñu xoolee loolu nga xam ne moom lañu ñu bëgg a waxtaane muy tasarrufaat yajibu an turaaja am na lu ñu ci mën a tudd waaye mëneesut a tudd lépp waaye nag lu ñu ci junj rek mu doon lu ñëpp maase xam ndax Tuuba dëkk la boo xam ne Cheikhul Xadim radiyallahu anhu moo ko sañc sance ko ay principe am ay mébét yu mu fi doon mébét ñaan ko ci xasida gu sell di Matlabul Fawzayn muy ay ñaan yoo xam ne soo ko jàngee danga xam ay jubluwaayam danga xam jubluwaay yi sëriñ bi ci ni bëgg dëkk bi mel ni même njaboot gi sax mu ngi leen di fàggul ci biir te mooy yoon wi mu ngi koy fàggu mi ngi koy fàggul ay ñaan ci biir xasida gi ba mën nga cee xamee ni mu bëggee woon yoon wi mel ni doxe ni doy na ca nag istishhaad waj'alhu da'ban maskana taallumi wa mawdia alfikrati wa tafahumi suñ jëlee bayit wow def ko istishhaad ci liñ bëgg a waxtaanee dana tax ku dégg li ñuy wax xam ne kon ñi ngi waxtaane tomb bu mat a waxtaane sëriñ bi dafa ñaanoon dëkk bi nekk barabu jàngukaay jàng lan jàng diine maskana taallum wa mawdi al fikrati wa tafahum doon barab boo xam ne dañ fi xalaate barab boo xam ne lu fi nit jànge da koy dégg di ko jëfe kon tasarrufaat yi ñu bëgg a junju ci yi ñu bëgg a waxtaane day dellu ci yi nga xam ne wuute na ak njàngaleem lislaam te mi ngi am loolu mën nañ ko tudde sax bu ñu neexoon sax ñu tudde ko an naqdu dhaati fexe ba li ñuy wax autocritique ñu def ko sunu bopp ndax léeg-léeg nit bu dee fàtte boppam mën nay dund loo xam ne wuute na ak lam war a dund te ñàkk critiquer boppam moo ko ko teg naqd nag dafa am solo ci mbir te booy xool mu mel ne dañ koo bëgg a jàppe mbañum yoonu murit dañ ko bëgg jàppe mbañum yoonu murit yàgg na lool ci lislaam ndax ni ko boroom xam-xam yi di taarife mooy ibraasul xasanaat wa sayiaat ñi ngi dund li ñuy dund am na ci lu rafet am na ci lu ñaaw jëmm taxaw ci sunu kanam ne ñu lii kat mooy li rafet moom wéy leen ci te jéem koo gën a dolli gën koo jëmale kanam lii mooy li ñaaw dellu leen ci ginnaaw loolu rek mooy naqd buñ ko jàppee mbañum yoon wi nag kon danañ xuus ci loo xam ne waroon na caa waroon nañ caa def intibaa te duñ ko bàyyee xel loolu nag indi nañ ci ay tomb yoo xam ne ba ci jiitu lislaam dañ koo xam ci nosu tënku ci genn kàddu looloo waral nga dégg tur yi nga daan dégg ca bu njëkk amirul muminin boo ko masaana dégg wala xalifa diw sàngam dégg nga alxulafa urashidun ba ni ndikke ci umara yi muluk yi yooyu yëpp ku fi nekk rek yaay yilif ña nga jaboote ñu tënku ci benn baat loolu nag toppoon na njàngaleem lislaam ba ni lislaam duggee ci sunu réew mi liggéeyub Sëriñ Tuubaa ci amoon tënku ci genn kàddu loolu murid yi siiw nañ ci lool ba ku ci joxe misaal moom ñoom dana leen neex a jox te danañ ko mën a dégg ñu tënku woon lañ ci genn kàddu jamonoy sëriñ bi ba ci jamono yu mujj yi ci jamono yu mujj yii ñu toll nag day mel ni pas-pas yu bari dafa fecc ko pas-pas yu bari dafa commencé fecc ko ñu bari tënkootuñ ci kilifteef nga xam ne ñàkk am fit bari na kook moo ko bàyyi ca lam nekk waaye du pas-pas am ñoo xam ne sax ñi ngi dem ci seen fit di doxe noo xam ne da ngay gis ne ñii jàpp nañ ni kenn yilifu leen te ñàkk kilifa moom la ci sëriñ bi waxoon Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu li anna man adima cheykhan murshida fa cheykhuhu cheytaan haysu qasada kilifa moom ku ko ñàkk cheytaane mooy doon sa kilifa gis nañ ni nag toujours bu may joxe misaal dama koy bëgg a joxe ci jamonoy sëriñ Abdul Ahad ndax mu gën a sori ndax gis naa ni jamono ji ñu toll wax ci suñu biir lu jafe la ndax fu nit waxee genn kàddu ngir jubloo defar mën nañ koo jël interpreté ko nu ne bañ déggee ko nu ne ci lu wute ak la nga bëgg a wax waaye bu ñu jëlee misaal ci sëriñ Abdul Ahad nga xam ne diggante bi ñett yilif nañ fi yoon wi lañ bëgg a wax lépp danañ ko joxe misaal ci sëriñ Abdul Ahad su ko defee nag ñu xool fi jamono toll ak ñun diggante booba ba léegi. sëriñ Abdul Ahad radiallahu anhu boole woon na yoon wépp ci génn buum téye ko ci loxoom kenn mënu ko génn ndigal li ci moom lay bàyyi ko lu nit di jëf da ko laaj si ndigal lu nit di wax da ko laaj si ndigal nga xam ne bu nit amee sax jafe-jafe ak koo xam ne bokkul ci yoon wi kooku amul sañ-sañub ñëw ci kim séqal lu dul ne dafay dem ci sëriñ Abdul Ahad sëriñ Abdul Ahad seet ka am problème ci njabootam wax ak moom léegi nag ci jamono booba gis nañ ni yii xew dawul xew woote yu bari yi ñuy gis kenn ku nekk taxaw di wax ci sëriñ bi la ko neex ci ay ngëneel yu dox digganteem ak moom ay maqaama yum am ay karamaat yu am loolu lépp dawul am kenn sañu ko woon ñu ngi ko doon bàyyi xel ci yu bari ndax ab yarekat la woon boo xam ne daf daan yare ci zaahir di yare ci baatin moom ci ak nekkam ku jalgate te yelloo ñu teg ci kaw mbugal dañ ko ca daan teg moo tax bàyyi woon nañ xel bu baax mbiram booba nag la yoon wi gënoon a am worma booba la gënoon a am wegeel ndax xam na ni am nañ koo xam ne kàddoom genn la kenn ñemewut a wax walla nga jëf ci lu dul ndigalam kenn ñemewut a wala nga jëf ci lu ndigalam dem na nag ba lu bari ci loolu ñu koy tàmbulee ñàkk gis nga jamono mujj yi ñu nekk bu dee ci diine ji gone yaa ngi dem ak seen bopp bu dee ci politique bi ñu ngi dem ak seen bopp ba dee ci yeneen wàllit ñu ngi dem ak seen bopp tënkootuñ ci kaddu ki nga xam ne moo yilif njaboot gi te loolu mooy li war a am inchixaax boobu am nag ba kenn ku nekk toog ci barabam jàppe boppam kilifa boppam loolu indil nañu ak jekku ci sunuy noon maanaam réeroo googu ñu réeroo ci sunu biir kenn ku nekk téye boppam jàpp ne mbirum boppam rek la war a doxal indil nañu sunuy noon am ci ñun ak jekku bu ma nee sunuy noon nag ñun toujours bu ñuy wax ñi jàppe ay noon mooy ñi jàpp ne seeni afkaar mooy fikra salafiya ñooñu rek lañ sibile ci sunuy noon ñooñu rek lañuy ñuy attaqué ñooñu lañuy waxal te ñooñu am nañ noon yu leen gën a garaaw nekk ci sunu biir am na noon yu gën a dansé ñooñu duñ leen bàyyi xel dëkk bi lu nee ngi fi lu nee ngi fi chrétiens yi sax ñu ci biir dëkk bi bàyyiwuñ leen xel ñun nag bu ñu defaraatu sunu yi fexe ba bennoowaat boolewaat sunuy doole yeewu lépp ci génn buum jox ko ki fi nekk ñëpp di ko diglu kenn du yëkkati kàddu ci lu dul ndigalam kenn du jëf ci lu dul ndigalam noonu yooyu dañuy gën a jekku loolu lenn la ci tasarrufaat yi nga xam ne mi ngi am te war nañ cee dellu ginnaaw lu ko moy ñu tàbbal sunu bopp ci kàmb gu dul mën a génn am na ay. jëf yoo xam ne ñun suñu biir léeg-léeg ñu di ko jëf muy wuuteeg njàngaleem lislaam muy wuuteeg njàngaleem lislaam bu ko defee ka ca noonu ba ca biti ku ne xam na ni yoonu murit moom dafa yàgg a weex aw donq maanaam tasawuf rek tasawuf ci boppam mooy yàgg a bari ay noon su yàlla dogalee ngay dund ci biir tasawuf nag yaay fexe ba ki noonu tasawuf bul ko may bunt bu mën a jaar ngir di ko màbb ak a dajj ñun nag léeg dañuy am ay afaal yoo xam ne wala ay infialaat yoo xam ne dañuy may noonu tasawuf bi mu sukkandiku ci loolu ne xoolal ñooñ tasawuf seen jëf yi nangam ak nangam su ko defee loolu metti la te fekk yow warulaa metti ndax lu ne ci yow la yaa war a defar saw toogin fexe ba li muy wax bu mu am li wala fi di wax ne bul bañ ku la tibbal ci gaalu xaj waaye nag fexeel ba buñ la ci fekk mënuñoo fexe ba duñ dajji tasawuf mënta nekk ndax yàlla mi bind jaam yi sax am nañu ko gàntal waaye nag téewut mu doon lam doon moom yàlla kon ñun tasawuf nañ fexe ba ña leen di dajj la ñuy wax ci ñoom saa bu defee ak ñoom xiwaar rek wala muqaabala ñu gis na ñoom ñoo nekk ci njuumte waaye ñii ñu ngi ci dëgg buñ gis ñoom yenn faay wala yenn bunt ñuy jaar ba dal ci seen kaw yooyu nag ñun am nañ ko yoo xam ne ñu bari ci ñun bàyyiwuñ ko xel ba ci jiitu diingatuñ ndigal ndax ci ndigal rek la tënk ñun moo ñu indi sax fii ñu toog waaye ñu toog fi ñëpp day jàngkat maase nañ xam ne fii ci tuubaa dëkk beeg ni ko sëriñ bi sañce ak sëriñ beeg li mu liggéey ci xam-xam ñu dem ba yor fii armeel yoo xam ne moo gën a rëy ci dëkk bi ñu gis fa doxaliin woo xam ne àdduna bépp amu fa te wuteeg njàngaleem islaam loolu fii rek la am armeel yu ñu séddale def ko ay kër loolu booy wër àdduna bi daanaka fii rek nga koy fekk kër sëñ diw kër sëñ diw kër sëñ diw loolu ci ci yi ñu war a teel a dellu ginnaaw ci la bokk yi ñu war a teel a dellu ginnaaw te nañ ko séddalee sax boo xoolee njuumte da ciy am ndax dañoo ber barab boo xam ne dañuy wax ne fee mooy murit ga kër kër sëñ diw sëñ diw mañ sancal foofu ne fii mooy kër sëñ diw ku ko yeewoon ne ko doo am murit mu jaay la bakkanam kon moom ca murit ga lañ ko waroon a yóbbu waaye beral nañ ko kër kon léegi moom mooy kan bàyyi benn pokkus ne fee murit ga fa lañ jëmee ña ca des loolu nag man xam ma jëf jëf fu mu bàyyi ko waaye li wér te moom mooy ñun ñëpp maas nañ xam ne moom lu wutee njàngaleem lislaam la rek moom te Sëriñ Tuubaa lislaam la fi nekkaloon loolu moom nañ ko nangu ñun ñëpp loolu nag lu mat a bàyyi xel la li liñ doon daw ci yii ba tax ñu tëj ko boo moytu fee lay gën a gaaw a amee. kon loolu wuti naag la war a am loolu lu jege la lu mat a bàyyi xel la amaat nañ yeneeni tomb yoo xam ne gis nañ ko mu wuteeg la war a am te mi ngi am suñ ci jugut wax naa ko suñ xaadim nee naa ko am na ci rek loolu danañ ko junj am na ci yoo xam ne moom dañuy wër rek ku am xelam gudd ba mu xam la ñuy wër la mu doon moo xam ne am na tawféex ku am xelam guddut ba man koo xamit muy gëstu ji rek ah <laughs> lépp mënta leer <laughs> dégg nga benn ngoog bu ñëpp nangu nañ ko bàyyi xel ñi nga xam ne sagub sëriñ bi mooy seenub sag tey boroom xam-xam ci dëkk bi nañ leen may doole ñu bokk ci ñiy nosaka nocc ñiy fasaka fecc man bi ma demee ci armeel yi ñu fay gunge ab néew ñu teg ko ci barab ba gasal ko fi kër gi ñu ko war a denc gasal nañ kër gi ñu ko war a denc ba teg di xaar mbooloo mi am ku ñëw ne sëñ diw nee na kat nañ ko yóbbu kër sañ diw ñu daal di yëkkatiwaat yóbbu foofa te fekk booba gasaguñu foofa léegi bu fekkee pàkkub suuf sii nga xam ne Serigne Touba ko moom am na barab yi ñu gën a wóolonte day mel nañu ñun suñ kóoluteef des na te doxin yooyu nag mën nañ ci dégg lu ne luñ ci dégg nag nañu neex ndax ñoo doxi doxinu wuteeg wa war a am man nag gis naa ni yooyu bokk na ci li ñu koy teg mooy dañoo séddale lu wër te séddalikoo dañoo fab li ñuy wax sulta muy pouvoir def ko muy ñaar ilmiya xilaafiya borom xam-xam yi ñi ñu jàppee ay boroomi xam-xam te ñu te doon ñoo xam ne ñu sëriñ bi ñor lañ ñu bëgg sagub sëriñ bi lañ di doomi dëkk bi ñëpp xam ne ay boroomi pas-pas lañ dañ leen a ber def leen benn kuréel ñoom nag amuñ pouvoir moom ñu isolé wu ci xilaafa gi te fekk la war a am bu amee ca jamonoy sëriñ Touba ba ci jamonoy sëriñ Abdul Ahad moom mii may wax bi fi Serigne Touba nekkee xoolal ñi ko daroon xoolal ñi ko daroon fañ àggoon ci ak ragal yàlla xam-xam sëñ Mbàkke bu su xool ko sëñ Daam Abdourahman Lo maam Thierno Ibra Faati sëriñ bi daan diisoo ak ñoom ci lépp lum nar ci ko yàlla xamal lépp nag waaye muy diisoo ñoom ngir seeni xam-xam ak seenu tënku ci diine yoonu géej gi rek bi sëriñ bi di dem ci liggéey bi diisoo na ci ak sëñ bu su boo demee ci irwa onarim da nga ko ca fekk suñu Mouhamadou Lamine Diop Dagana moo ko nettali di ay kàngam yu fees dell yoo xam ne seenu lef neexuta seen sëñ Moudou Moustapha noonu la nekk noonu la nekkoon bi mu nekkee ci xilaafa gi moom microcentral képp sëñ Muxtaar Binteloo di boroom xam-xam bu mag bind lu bari moo ko daan yoral loolu nga xam ne moom léppam borom xam-xam a ko yor muy diisoo nag di wax ne néew ma néew ma du ma juum waaye bu ma juumoo mbooloo dana juum sëriñ Abdul Ahad ku ne xam ne sëriñ Muhammadul Maamun ñang ca wetam di jàmbaar ci xam-xam di jàmbaar ci toolu sëriñ Tuuba di gëstukat bu mag toujours foofu laa yemale li mu bëgg wax man ci ci xilaafa googu ndax boo jàllee damay bañ ñu jàpp ne da bëgg a wax kenn te luy defar yoon wi rek moom itteel man ñooñu ci jamono yooyu yu bari yi am tey wute nag la daan am lépp lu ñu daan def rek booy xool day tegee ci xam-xam bu leer nañ bi ñooñu jàllee nag jamono yi ñu toll la tàmbalee Serigne Abdul Ahad ba léegi dafa mel ne yu bari dafa soppeeku dafa mel ne yu bari dafa soppeeku danga gis jàmbaari sëriñ bi mu am ka jàmbaari sëriñ bi di boroom xam-xam di ku bëgg a liggéeyal sëriñ bi waaye du am kàddu ka am kàddu nag doon koo xam ne bu waxee adduna tukki bu waxee ñu xeeb sëriñ bi nga xam ne ñi bëgg a yap sëriñ bi ci moom lañ ko jaaree biig dafa am waxtaan wu doon def fii ci kër sëriñ Xaadim Guèye ña ma ko seqaloon ay ay ay ay jàmbaar lañ waaye am na ci koo xam ne sëriñ Gana Messere Mokhtar biñ noppee bi ñuy waxtaan dama wax daa wax lu ma convaincre man bi noppee ba toog ci biir néeg bi di waxtaan dane xam nga man. nee nañ amuma xam-xam man Gana Messere d'accord naa waaye taxawaalukat yu bari man rek la ñuy diglu te mën naa leen a xëcc bu dugal leen ci yoon wi nañ ma bàyyi ma xëcc ñooña ba ñëw ñu seet kañ ne moo am xam-xam ñu jàllale leen ca kooka mu xamal leen ma ne ko li wax d'accord naa ci yow d'accord naa ci yow ñi ñu war a soutenir duñ leen soutenir ñañ war a taxaw duñ leen taxaw. bokk na ci sun yi ñu war a dellu ginnaaw wala loolu sax moom dañ cee war a jëm kanam lu ñu dellu ginnaaw loolu ñu war a jëm kanam kon day mel ne tasarrufaat yajibu an turaaja moom la ñu doon waxtaanee waaye nag am na ci boo xam ne moom dañoo war a dem ca kanam boo ko defee mu mu mu mu mu dox suñ digganteek gàllankoor yi ñuy waxtaanee jaamia yi nga xam ne sëriñ Abdul Ahad moo ko fi defoon nee naa leen man ci lay gën a incité ci sëriñ Abdul Ahad bi ñaata milliards la ci def. ban objectif la amoon ci bi mu koy liggéey ba mu sotti boobaak léegi ban dong la jaamia bi génne ñu ne kii fi la jàngi alxuraan ba mokkal wala fii ki la jàngi diine ba am na bi shahada wala am na kat bii tolluwaay ci xam-xamu diine kan la génne te mi ngi fii soriwut te toujours nag suñ discours yépp mooy sëriñ bi rekk a fi dëgg la nañ xamal nit ñi sëriñ bi nañ leen nañ kennal sëriñ bi sëriñ bi naka lañ koy xamale nit ñi nañ liggéey jaamia bi ba mu àgg ay jàngalekat teg fa ñuy jàngale diine mawaad ñuy jàngale am na taarix am na siira bu ñu demee ci war a jàngale siira ñu jàngale sayxul xadiim xale yi xam ko waaye gone yi ku ci xam dara ci sëriñ bi rek ci jataay yu mel nii ngay dem for fa lañ cee for dem gëstu ji te kuy gëstu te xam-xamam soriwut mën naa far lu wér mën naa far lu wérut ndax wa man taallama bila muallimin muhaqiqin fa innahu su wahami loolu sëriñ Tuubaa wax jaamia bi mën nañ koo eggle wërsëg bi moom mate na ko mate na ko sëriñ Tuubaa bàyyi na fi ndono lu ko mën a finance lu ko mën a yor ci anam yu baree bari waaye bàyyiwuñ ko xel su ko defee nag bokk na ci li ñu war a delluwaat ginnaaw mooy xuloo bu bari bi suñ digganteeg ñenn ñi wax dafa saafarawut lu bari dañuy wax ne li kulli qawlin raddul qawlu wa li kulli fialin raddul fialu gaa ñi dañuy jëf ñun buñ dee wax duñ man dara ci seen jëf ci dañuy jëf comme ñoom madrasa bii kët li muy jàngale bëgguma ko naa indi madrasa boo xam ne dana taxaw ci kanamam jàngale ci li ma bëgg sëriñ bi bi mu fi nekk Cheikhul Xadim radiyallahu anhu ñi fi nekk ñëpp nekkoon na feek ñoom waaye li ko may lim am mooy da a bàyyi woon ca lañ ne moom nekk ci lim nekk ba réussir léegi nag boo taxawee nag di leen seetaan naka wax naan ñii liñ yor baaxut li ñuy def baaxut te liggéeyoo ñoom dañu réussir de dañu réussir loolu ci sunuy ci sunuy faay la bokk démb junj naa ko xam naa waxtu bi moom xat na xataay boo xam ne démb junj naa ko am na ci boo xam ne barki dem rek laa ko gis bi ma ko gisee dama ne lii de. wute naag lool njàngaleem Sëriñ Tuubaa ci dëkk bi ñun ñëpp ñu di ko dund xool leen corniche bi war leen corniche bi ngeen xool bagage yi fi nekkoon ni ko gaa yi yàqe man néew ma waruñ ko faa jëlee kii ko digle kaa ko digle waxuma ci loolu waaye ñi doon dox di ko fa jëlee moom da cee am ñoo xam ne dama dox ba yem ci ñoom gis leen nañu yàqe agsi ci palaasu koo xam ne kii lii rek la am ci lay suturaal ak njabootam te buñ taxawee ne ko jëli ko fi mu yanu ko dem ak moom duñ ko jëli ko fi dañu agsi mu dem loolu yàq la tey it jaay doole la yërmande sëriñ bi day mel ni la la la suñ seex gay waxoon ca taalifam wa ñu ngi koy gis yërmande ndax daa faatu am daa gëj fi ñun ab diire ngi gisatuñ ku gis ku ne maa ko gis xoolal fan yii korniis bi bi ñu ko defee noonu ñaata boroomi kër ñoo diñe ak ñoo fande ñaata boroomi kër te mboolooy ànd ñëw benn waay joxoñ ñenn ñu yori si di dóor ñenn ñi di yàq yàq koo xam ne kiimaan la yaakaar nañu ci bari gis nañ ko def yin wow nag kilifa yi waroon nañ cee bàyyi xel mën nañ leen faa jëlee te duñ leen yàqal dara mën nañ leen faa jëlee te yàqal dara kon yàq gi moom gënalu sëriñ bi te it ñàkk yërmande la ña koy def nañ bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax a baax a baax mu mel ne ñu ngi dox doxin yoo xam ne. suñ delluwaatu ci liñ waxoon ne xeetu mujj wi ak jagam mi ngi jage ca la jagaloon xeetu njëkk wa guute gi nekk duñ ko génn kon faw ñu delluwaat ci doxiinu sëriñ Tuubaa wa doxiinu sëriñ Muudu Mustafaa wa doxiinu sëriñ Fàllilu wa doxiinu sëriñ Abdul Ahad wa mbir ya mën a tegewaat fa mu tege woon boo gisee ma yem kër sëriñ Abdul Ahad man kër sëriñ Saaliw laa yaroo waaye naa yem fee man kër sëriñ Abdul Ahad googu fa la jubloo yem guddi yi ñu toll la daloon saxaaba yi seen diggante ak bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ñuy dal ñu bari ci ñun murid yi ndigal jib ñii di sikki sàkk ñii gëm ñii di sikki sàkk te la war a am bu amee ki fi nekkal Serigne Touba radiyallahu anhu fu mu yëkkatee kàddoom sikki sàkk waru caa am sikki sàkk warut am ci ki ne am murid la ka fi nekkal Serigne Touba wax muy am lu mu cee sikki sàkk loolu warut am wala muy am lu mu cee commenté warut am buñ demee ba jamono yépp muy am nag nañ xool ko waral du ci Serigne bi de moom maanaam du ci xalifa bi mat na lam doon du ci xalifa bi mat na lam doon de. ndax nit ñi xam nañ ko lu jiitu muy toog xam nañ ko ci bi mu toogee lam nekkoon rek ca la nekk waaye nag al muhit dafa am solo entourage lu am solo la gis nga doomi Serigne Touba yi am na ñoo xam ne lañ bëggoon a liggéey sax liggéeyuñ ko ngir entourage bañ amoon moo leen jàppale ci seeni pas-pas ñi jiite réew yi rek. njiiti réew yi ngay gis rek ku ci am entourage bu bon la nga bëgg a liggéey doo ko liggéey léeg nga gis liggéey liggéey bu am solo te du ca dara entourage bee baax rek jamono ji ñu toll nag am na loolu ñun ñun murid yi soxla nañ ko soxla nañ sëti sëriñ Touba yi nga xam ne ay boroomi xam-xam yu mag lañ te nit moom du toog ci der di xas aw yàpp bu ko defee gorewut ñooñu amuñ ko dul sëriñ bi nañ leen indi am majlis te ñuy xool ndamul sëriñ bi te bañ a kenn bañ a bëgg ndamul boppam bu kenn bay bu kenn bëgg ndamul boppam nañuy xool ndamul sëriñ bi bu ñu waree amal jalsa bu mel nii man bu ma bu fekkee placé wu ma ci wax daraja wala ak jege wala ab cir bu tax ñu teg ma fi nañ fi teg rek ko ko man bu ma xew ba tax ma wax walla ma am daraja ba tax ma wax wala ma ne bokk naa ba tax ma wax nañ seet ka war a wax mu wax même bu njariñ feeñee it man bu ma bëgg njariñ loolu ba tax ma xëccoo ko na ma sagub sëriñ bi yitteel ma seeti koo xam ne wóor na ma ne kët kii moo ma gën a mën a sagal sëriñ bi ma bàyyee ko yooyu nag fii mu ne nii ñu toll doxuñ ci ñun biig rek wax naa ko ci jataay bii ñu amoon am ku ma dëggale lu am solo ma ne am na ñoo xam ne ci ñun bu sëriñ bi tegee woon nii ñoom bu ñu leen fayee milliards ñu jaay seen wàll ba ma ko waxee am ku ne ma wax nga dëgg de ndax am na ñuy jaay seeni i barkeelu gis naa ko yor mbubbum sëriñ Tuubaa jaay ko 7 millions et ma ne ko gis nga kii jaay mbubb mi bëgg lu mu am a tax barkeelu sëriñ Tuubaa kon am na ñooñ bu tegee woon ñu fay leen milliards ñu jaay seen wàll am na ñoo xam ne nag bëgguñ dara dara dara lu dul moom te lañu war a xam lépp xam nañ ko ñooñu nañ leen nañ leen nañ leen nañ leen boolee bu ñu demee it ba gone ku bëgg dund sama classe gi ku bëgg ñu integre la ci yëf yi nga wax lu ñaaw ñu daal di lay woo boole la nga noppi su boobaa ñi bëgg a dund ñépp dañuy def loolu prétexte boo xam ne ku bëgg dund fa ngay jaar ku bëgg a dund rek ci ñàkk teggin ñàkk kersa wax lu ñaaw ci ngay jaar ngir ñu man laa intégré loolu it ay faay la yoo xam ne mi ngi am am naa lu ma ci seet lu loo xam ne waxoon naa ni man lu ma jaaxal la ndax wax dëgg yàlla bu ñu demee ba la daan am xoolal rawdatu bi muqaddasaat yi ñu am muqaddasaat yi nga xam ne mooy barab yi nga xam ne yuñ fonk la barab yu sell la nga xam ne barab yu laab la bu njëkk njabootu Serigne Touba gi képp ñoo daan am accès ci barab yooyu kooku dama koy tàmbulee ci rawdatu bii te li may wax dama ko teg bët rawdatu bii ah am na ñu fay am accès ñoo xam ne waruñu ko faa am ñabooru Serigne Touba yi ñu daan am accès ci biir waaye borom alal ju jóge fële ñëw am relation képp te xamuñ fu mu fanaan xamuñ digganteem ak boromam nan la doxe xamuñ ak ragal yàllaam te boo ne jàkk xam ne kii am na yu muy jëfandikoo muy am accès di dugg ci biir barabu Serigne Touba bi yooyu yëpp ay tasarrufaat la yoo xam ne war nañ cee war nañ bàyyi xel te yooyu ngi am mbërum làmb sax mën naa ñëw am accès ci biir ndax yor na lum joxe. yooyu yépp nag ay yëf la yoo xam ne faw ñu di ci wax ndax ñàkk a def an naqdu zaati yi moo waral ñu xuus ci yenn yoo xam ne mën naa ñàkk tamit ngi am kër sëñ gi gii nga xam ne digganteem ak sëriñ bi mëtut mëtut 100 mètres digganteem ak fi sëriñ bi tëdd mëtut 100 mètres ñiñ fi ñiñ fiy dalal waroon nañ di seet nit yi yi ñu di leen fi dalal waaye bu ñu sedd kii am na alal rek wallaahi alasim am na ñu fay naan sàngara am na ñu fay fat ñu soxna yu dul seeni soxna ci foo xam ne fi Sëñ Tuubaa tëdd diggante diggante bi mëtu 100 mètres diggante bi mëtu ko te am na ñeneen kër yu ñu leen yóbbu nañ sori ñoom yooyu yëpp ay yëf la yoo xam ne mi ngi am te nag am na am na yu ko gën a garaaw yoo xam ne moom kenn du ko tudd Sëñ Amsatu mi mas na maa wax ca Daarul Karim mooy bi may tudd chrétiens yi léegi yaakaar naa gis nga ne ma ànd naag diw am na ko mu àndal moom joxuñ ko kër ne ko kër kër gi ab chrétien ko moom ci biir dëkk bii di Touba déggal loolu pàkk bu laab sëriñ bi sanc ko ngir diine kese kese kese kese doxiin yi ak réeroo gi suñu biir dem ba am ñu fiy tàbbi ñoo xam ne nit sax man naa dëkkamu te loo xam ne kii ab chrétien la li feeg nag ñi ngi bëgg alal di bëgg doxin yi moom dana yeex a jag te nañ jàpp ne ñaar yooyu moom toppewuñ ko yoonu murit ñaari yooyu maanaam sëriñ bi képp lañ toppe lañ toppe yoon wi sëriñ Abdul Ahad waxoon na ko ci ne saa bu ko génnee rek sëriñ Moustapha Bassirou dootu ko ŋàbbal ak satala lu lu barke bi bari bari nag lu kilifa mën a am ci ñun ci alal ak nu mën a demee ña ca bitti moom tey boroomi alal loola moom duñ la ko nawee ndax loo ci am ñoo la ko ëppale ñoom sëriñ Touba rek lañuy xool ci yow sëriñ Touba moom yi nag sunu liggéeyal ko dëgg day delluwaat ci ñu xool mbir yi fa mu dëkk ñu teg ko fa këram googu ak raw rawdatoom boobu ñaari baraba ngoog yoo xam ne mat naa bàyyi xel te boo dee xool day mel ne ba Touba daj ba Touba daj kuréel boo fi seen muy wéy kuréel boo fi seen muy wéy feeñ ci biir yàlla daldi ci tàmbulee néew am yeneen yu laxasu ca biir amoon na ci tomb yi li suñ Tuubaa doon jàngale ni mu bëggee woon ñu bennoo kenn ku nekk ci ñun sa moroom gënal ko sa bopp waaye ñun ñu dem ba loolu ñuy wax ruyatul fadli ala moo am léegi ci biir njaboot gi ci domaines yu wuute nag kuréel yi ñi jàngale alxuraan ñi nekk ci école yi di jàngale ñi nga xam ne ñoom dañoo féetewoo mbirum tarbiya ñi nga xam ne dañuy jàng xasida di ko durus ñi nga xam ne dañuy jàng xasida di ko yëkkati koo ci fekk ci domaine am rek pour moom moo gën ñi ca des koo ci fekk ci domaine am pour moom moo gën ñi ci des te ngëneel li nag mi ngi gën a mi ngi gën a ràññikoo ci ña sëriñ bi wax ne ñooy ña gën te mooy yaraw na anfusahum dunal wara abadan loo mën a nekk rek lu mu baax baax du tee koo gis jàppale moo la gën waa wa annahum lam yaliqu bil karamati wa annahum afsaqu alfusaaqi kullihimu wa annahum lam yaliqu bil ijaabati loolu sëriñ bi jàngale woon loolu bokk na ci tomb yooyu ci biir barab yu sell yooyu ma doon tudd ginnaaw bi ma tuddee sax ñi nga xam ne ci ñun lañ bokk ñi nga xam ne dañuy jóge Europe di ay ay ay ay ay nit ñoo xam ne duñ doomi réew mi gis nga accès yi daan am gis nga accès yi daan am ci yenn barab yi te waroon nañ leen di càmbar càmbar gu gën a sévère niñ leen di càmbaree xoolal màkkatal mukarram xanaa nga nëbbu li nga doon waaye bu fekkee doo ab jullit moom alal mënta tax nga dem foofa waxuma nag ci yeneen yeneen barab yi waaye jëmmi màkka moom boo du ab jullit doo fa dugg wala boo boo fa duggee te doo ab jullit ba ñu xam ko indi nga sa bopp fitna waroon nañoo fexe nag ba suñu barab yu sell yii nag ñu war maa leen noonu suñu kilifa yii war ma ju toll nii xam ña leen di jege ak ña leen du jege xam ñañ xajoo ak ñañ xajoowut xam xam ñi dëkkaale ak ñoom ak ñi du dëkkaale ak ñoom yëg-yëg la boo xam ne ñun ñu toog fépp ñoo ko ñu ñu toog fii ñépp ñoo ko bokk yëgandoo kenn ku nekk ci ñun yëg na ko léegi nag lu tax suñu ko wax <clears throat> gis nga la dala ci yonent yàlla Muhammad ba fii ñu toog li ëpp ci li jag la ko jagal mooy diisoo li ëpp ci li daan maye ndam la ko maye mooy diisoo te buñ ne diisoo nag tekkiwut ne ñun kuréel bii dañuy daje waxtaan ci sunu biir ba sottante xalaat fab xalaat yooyu yut ko génn kilifa mu xool ko bu ko soobee mu wéel bu ko soobee mu récité ko loolu du diisoo rasulullahi alayhi salaatu wasalaam ci xasatu badrin xasatu uhud bi mu jotee risaala ci ñëwug yéefar yi bi muy diisoo dafa bokk ci mbooloo mi booy diisoo da ngay bokk ci biir mbooloo mi suñ dajjee sab xalaat majorité bi not la nga wàcc sab xalaat ànd ak ñoom yadullahi ma al waaye saa bu ñu demee ba nag dañuy bàyyi ñee ñu dem waxtaan ba noppi indi xalaat bi joxe ñu seet lañ cey def ak lañ cey dindi loolu doonatu doonatu diisoo yonente bi diisoo na ba tey ñu dajj xalaatam mu bàyyi ànd ak ña ca des te booba saxaaba yi moom ñi ngi ko teg rek ci mbir mi ci xalaat la tegu wala wax yu la bu dee wax yu nag lu bàyyi ko fa yàlla moom samaan wa taa rek la ñuy wax dégg nañ ko daal di koy def bu dee xalaat rek nag kenn ku nekk day indi xalaatam ci mbir moomee ci la gën a rafet ci lu koy gën a jëme kam kanam tey murid yi fi nekk yépp bu ñu leen wowoon di diisoog ñoom ci luy gën a yokk sagub sëriñ bi kenn ku nekk la nga yaakaar na moo ko yokk rek ngay wax waaye kenn du wax lu koy wàññi su boobaa nag bu ñu seetee ña nga xam ne nag nattu nañ jamono ay wàllam xam nañ ci lu baree bari dox nañ jàng nañ xam nañ seen diine xam nañ doxaliinu àdduna mën nañoo indi ay doxaliin ak ay tëraliin yoo xam ne doxiin wi dana gën a rafet te gàkk yi ak xeer yi dana gën a wàññeeku te su boobaa danañ liggéey waaye sunub liggéey des na ci liggéeyu mbooloo laa wax de des na bu baax a baax a baax xam nga ni ñuy séentoo safar yitte jiñ koy jox ak liñ ciy def ci alal ak nit ñuy ñore loolu yàlla xam na ni def yor na jaamia bi sëriñ Abdul Ahad defaroon te jaamia bi mën naa liggéey lu ëpp solo loolu ndax su boobaa gone murid yëpp mën na leen tàggat def ci ñoom xam-xam xamal leen sëriñ bi ñu tisaaroon a dem ci àll bi ñoom liggéeyali sëriñ bi bokkut loo xam ne période bi ñu koy def benn diggante lay doon boo xam ne bu xasee jàll déwénati lay day nekk moom lu sax dàkk kon barab boobu moom lu kilifa yi war a insister la bàyyiwaat xel ci ne dañ ko war a suqali defar ko fexe ba li ñu naqari ci njaboot gi ñu saafaraa ko foofu waaye mënuñ koo saafaraa ci mbedd yi mënuñ koo saafaraa ci waxi kese buñ jógee ci wàll googu ñi nga xam ne ñoom la yàlla dogal biñ bokkee ci sëriñ bi ba noppi it awale nañ leen ci yoon wi nga xam ne moom la ñuy awale bépp jullit balu mata xam ñu xam ko balu lu mel ci melokaan wu rafet ñu mel ko lu ñu war a jëf ci seen diggante ak seen boroom ñu taxaw ci ba ñëpp xam ne taxaw nañ ci ñooñu nañ leen feeñal wane leen jëflanteeg ñoom noo xam ne gone gu bëggatee tedd dangay aw ca yoon woowee te fekk yoon woowu mooy wëgën waaye ñaa ngi ci biir dëkk bi kenn xamu leen ñoom sëriñ aboo rek ñoo leen di luqar ci léeg-léeg di leen liggéeyloo bu du loolu kenn du leen dégg kenn du leen gis ndax àdduna ak bakkan ak bànneex ak seytaane tàbbi ci mbir da leen a yomb te am na ñoo xam ne lu kenn ci ñooñu tàbbi amatuñ ci soxla fépp fuñ séen luy tegtal xëccoo fépp fuñ séen lu nuru ab am-am fépp fuñ séen luy nuru daraja nga xam ne mbooloo nga fa kenn ku nekk di ko xiiru ñu bàyyi loola. te ñoo ñii nag seenub liggéey su boobaa du mën a feeñ ndax loo doon doon jàmbaar te jàppalewuñ wuñ la doo léggéey am na jàmbaar joo xam ne ma nga ci ab ruqam toog liggéeyu daara te fekk pas-pas la feese dell buñ ko jàppale woon rek mën naa feesal àdduna bépp ak ngëm biig wax naa ko gaa ñi ñu doon waxtaanal ma ne ko ñun sunu problème ñoom suñu am satu xam nañ ko sunu problème mooy ñi ci des gaa ñi ci des seenub liggéey dafa gën a fés dafa gën a farlu sunub liggéey ñun ñoom li leen seenu nit di jaral ak fañ bëgg mu àgg fa la mu leen di jaral ñun sunu nit duñu ko jaral demoon naa sax ba ne ko léeg sax ñun bu dee ñun taalibe yi li ñu sëriñ bi di jaral ci kilifa gi nga xam ne moo ne ci sunu kanam kenn ku nekk la ko la ko sëriñ Tuubaa jaral ci ab sëriñam mën naa am sëriñam boobee sëriñ Tuubaa jaralu ko ko ci donga bi ndax sacrifice bi muy def ngir sëriñ bi sëriñ bi mën naa bañ a def boobu sacrifice ngir donga bi te dañoo waroon tolloo pas-pas loola sëriñ tubaa jaral ci sëriñ bi rek na ko sëriñ na ko sëriñ tubaa jaral sëriñ bi ci donga bi yow foofu nag wuute am na fi déclenche bu soree am na ci diggante boobu loolu ba ma ci joxe misaal damay wax ne léeg nga gis <clears throat> kilifa gu toog ñu fekk ko fi mu toog yëkkati 100 million jox ko ko addiya ci ronam. ab jullit nga fa boo xam ne am murit la bu wér bokk ci njabootam di góor góorlu te ñàkk ay moyens waaye du àtt na yëkkati 2 million moom jox ko ko dimbalee ko ko ca loola ngir Sëriñ Tuubaa te moom jox nañ ko 100 millions ngir Sëriñ Tuubaa yooyu yëpp it yu mat a bàyyi xel la buñ fekk ko ku melul na war a mel ñu kaweel ko wane ko fekk ku nekk ci góor góorlu mel noo xam ne yow bu boo jàppee ne melut na mu war a melit boo delloo ci njàngaleem Serigne Touba gis nga ne moom melokaanam mii moo dëpp ak bëggu Serigne Touba nga giimal ko loolu di wéyal liggéey bi su ko defee mbir yi ñu delloo ko ci fa mu dëkk lenn lu nekk ñu teg ko fañ ko war a teg lenn lu nekk ñu jox ko ko moom loolu daal ay buñ ko defee delluwaat ginnaaw ci ñu war a dellu ginnaaw avancé ci ñu war a avancé yi ñu war a dellu ginnaaw moom tudd naa ci yu bari yi ñu war a avancé laa tudd muy jaami ab Serigne Abdoul Ahad bii. yooyu daal bu ñu ko defee danañ gis ak soppeeku ci sunu doxin danañ gis euh, lañu ñu gënal ci sunu njaboot danañ gis ne yu bari yu daan tàbbisi ci sunu biir muy xeer yu ñuy sànni wala ay tuuma yu ñuy jam ci lu wuteeg njàngaleem lislaam dana gën a wàññeeku foofu nag jàpp naa ne fi laay wàcce sama kàddu lu ci jub sunu borom la subhaanahu wa taala lu ci dëng mata dëgg doomu aadama la lu ci ñagas ñu ngi koy tuub te di ko jégglu sunu yitte mooy bëggu sëriñ bi ak sagub sëriñ bi yàlla xam na ne jublu ñoo sànni kenn ay xeer jublu ñoo xeebal kenn ab liggéeyam liñ bëgg rek mooy ñun ñépp ñu am liñ bëgg ci sëriñ bi te mooy mbiram di di sut ba faw di gën a taaru ba faw di gën a jëm kanam ba faw te jàpp nañ ni yii ay jéego la ci yooyu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ Cheikhouna waxtaan wi niñ ko doon séentoo kawe na suñu njort ndax tomb yi ngi fi doon wax yépp yu ama am solo la yoo xam ne jar naa jar naa bàyyi xel muy ay doxalin yoo xamante ni daanaka mën nañu dund gi yépp ay doxalin la soo ko tàmbalee ci kër ga ba ci nga génn ci mbedd mi ci oto yi léeg-léeg yu xaw a doy waar daf ciy am nit léeg-léeg day dugg doo àndu ca koñ ba may ko mu toog dangay da ngay àndu jege ci bunt bi naan si kanam laay wàcc lu ci ëpp moom buy jàll di toogee ca palaasam léeg dina gaañ kenn te mën naa am yow yaay yow yaay sabab ba téléphone yi yi yor ci ndaje yi léeg-léeg léeg-léeg nit téléphone am dana dana sone mais daf koo rëcc mais bu ñëpp gestoon rek bàyyi ko xel noonu léeg-léeg dana ko xaw a yóbbee genn kersa gi ndax nit dafay juum léeg-léeg boo ñëwee ci comme xeeti mbooloo yiy sosu nii yee ñuy def wala yee ñuy wax ak kii lu ci gën a bari dafay attaquer directement aqida muy pas-pasu nit ki ndax léeg-léeg nga gisu jataay ñuy wax nit ki ne yow kat yàlla nga borom jaam ñi walla yu mel noonu te bu ñu xoolee suñu sëriñ Cheikhuna Cheikh Ahmad Bamba yàlla daaw ko booleeg dara lahul wujudu alladi xad zaanahu xidamu maa albaxaa'i wa xeyrullaahi lillaahi ku dul yàlla yàlla moo la yàlla moo la moom yonent bi salallaahu alayhi wa wàcc waayoom boom ko joxoon néew na ku ko jox saxaabatul kiraam ridwaanulaahi alayhim fa mu tegoon kawe na lool lool lool mais boo ñëwee suñ jamono ji xaw naa doy waar lool lool téereem bii di téereb yàlla bu tëdd bii di alquranul karim ak koo fonkoon ak koo fonkoon waaye suñu jamono ji ñu bari dañu jël xasida rek rek rek rek yam ca alquranul karim duñ ko nangoo benn yoon te loolu xaw a daaxoonteeg daaxoonteeg bu baax njàngale cheikhul xadim radiallahu anhu kon sëñ bi tudd na fi ay ay tomb yu baree bari ne saafara bi nag mënta nekk lu dul ci ñu jàngal gone yi bu baax a baax ndax mbooloo yi e, ki ciy gën a loro mooy xale bu ndaw bi nga xamante ni amul ay bagage yu mu analyser bu dee yow mag mi moom mën nga cee mucc ndax lu ñuul ak lu weex yow da nga ko xàmmee mais léeg gone gi ab gëstoom du àgg fenn fi ba xam ne daanaka lu ko fëkk day yomb kon kat jànguwaay ci dëkk bi mënta ñàkk ñu gën kaa dolli ñu fi jàngale njàngaleem lislaam bind cheikhul xadim radiallahu an bu ñu ko defee defe naa euh, jafe-jafe yëpp ñu jàngoonteel dana mën a dana mën a saafaraw kon du ñu guddal dañuy jox euh, njabootu sëriñ Masamba Faati auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah alxanaan almanaan wasalaatu wasalaamu ala sayidi aladnaan wa ala alihi wa ashaabihi sawi ridwaan wa ala abdihi wa xadimihi ajibatu lawtaan wa mawridu samaan asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi jullit ji mbokki taalibe yi tase ci barab bu tedd bii di addaaru rahmaan barab yi nga xam ne bokk na ci sëñtu Touba rëddaloon boppam ngir yee ci ak njabootam ngir teg ci awyoon ay taalibeem ñi ngi leen di nuyu ci barab bu tedd bii ñi ngi leen di nuyu ci kàddug sëriñ Ibrahima Bousso mi nga xam ne tey moo fi jëmmal kii nga xam ne moom ngéntu tudde bi di sëriñ ma sàmba Faati Buso waaye sëñ ibraahima Buso moom itam tey moo fi jëmmal sëriñ Buso bi mi nga xam ne mooy waajuru sëriñ ma sàmba Faati moom yi ngeen tudde bi ñu ngi leen di ndokkeel di leen jaajëfal di nuyu ki nga xam ne mooy kilifa kër gi di sëriñ seex Mbàkke te ñu gën koo xam ci sëriñ seex say mi nga xam ne tey moo fi toggal sëriñ bu Mbàkke ñu ngi koy ñaanal suñu boroom gën a wéral aw yaramam ci yokk aw fanam ba lim yéene liggéeyal seex bu mbakke mu am ci la kawe njortam mook njaboot gi ànd ak moom yépp waaye ñu ngi ñaanal borom barab bii di sëriñ Sohaybu sëriñ mboroom gën a yokk ay yërmande ak njëggal ak i leer te suñ borom taas ñu ci barke ci leer googi kon nag suñ mbokk mi nga xam ne moo ñu doon sax wala moo ñu doon fàttali suñ bopp waaye moo ñu doon fàttali suñ digg suñ boroom waaye moo ñu doon fàttali suñ digganteeg li ñu war ci dëkk bi ñu nekk kon nag sëriñ seexu Seexuna ñu ngi lay ndokkeel bu baax cay xam ne waxtaan wi rafet na nañ ko bëggee woon yépp deme na noonu sëriñ Ibrahima Bousso moom mi nag yónni woon fi ab délégation bu yaatu boo xam ne ka nekk ca bopp ba mooy sëriñ Baaxeer Bousso di doomam ànd ak sëriñ Alhaaji buso ñu gën koo xam ci sëriñ Alhaaji Ñanga bokk na ci délégation boobu sëriñ As Bousso ak sëriñ Jili buso ak sëriñ As Sàll sëriñ Moodu Bousso sëriñ Abdoulahat Bousso sëriñ Maxtaar Buso sëriñ Abdoulahat Buso sëriñ Moustapha Buso sëñ Basiiru Toob sëriñ Cerno Buso sëriñ Sërif Buso ak sëriñ Jiilim sëñ Omar sëriñ Seydina Buso sëriñ Moodu Buso Sooda sëriñ Maalik Njuug sëñ Maxtaar Sëy ak sëñ Seexuna Buso bokk na cee ñooñi sëriñ Ilimaan Buso ak sëriñ Ibrahima Jaw ak sëriñ Jili Kebe ak sëriñ Ahmadou Buso ak sëriñ Moodu Gay bokk na ci ñu àndal soxna yi nga xam ne ci ak njabootam lañ bokk ca ka ca jiitu sa soxna maam Mati Buso ak soxna maam Aysa Buso ak soxna Amidaam Buso ak soxna maam Buso ñii ñooy ñi nga xam ne ñoom la sëriñ Ibrahima bu so yabal ñi ñëw fekk fi nag suñ mag du suñ maam Balla Buso mi nga xam ne ñépp min nañ ko ci kër gi kon nag mbokk yi jàmbaar ji nga xam ne moom ngeen tànnoon tuddee ko seen bis bii ci la ñu sëriñ Ibrahima moo moomu sawoon ay baat yoo xam ne dañ leen koo bëgg a leeral tuuti ngeen xam ne kii ngeentu tudde bis bi day ku jare tudde bis la ndax lan la ca njëkk mooy mbokk gu ñuy wax mbokk sëñ Tuubaa def caa tibb ba doyal ndax soxna Faati Balla mi nga xam ne mooy waay waajuram soxna sëriñ Abibullahi Mbàkke moo ko jur te sëriñ Abibulaahi xam ngeen mooy wayjuru sëñ Mor Anta Sali mi wayjuru sëriñ Touba kon xam ngeen ne kooke mi bàjjan la ci sëñ Touba ci saahir buñ dee wax waajuram bu góor di sëriñ Musoobe sëriñ Musoobe moomu ak soxna jaare bu ñoo bokk lépp sëriñ Musoobe moo jër sëriñ sàmba Faati soxna Jaara Buso mooy wayjuru sëriñ Touba kon nag mbokk googu mu bokk ak lépp teewutoon da koo jaayoon jëndee ko ak taalibe noonu nga xam ne noonu ko sax Mouhamadul Fadil Mbacke defee woon sëriñ boobu nag mi ngi gane woon àddina ci Saalum benn muy dëkk bu ñuy wax Afe Murit mu ngi ci diggante Kaffrine ak Naawel bi nga xamee ne sëriñ si jóge nañ Jolof te waroon wuy ji Màbba Jaxu ci jihaatam jooje mu doon woote foofu ci ñuy Afe ba léegi sax foofu lañu ñu denc way juróom wu jigéen woowee di soxna maam Faati Balla nga xam ne sëriñ sa deex ñang dem na ba toppatoo barab ba ba di ko siyaare loola nag mi ngi amoon ci 1865 la gane woon àddina jànge woon alxuraan ci loxoy way juram ba mokkal ko ci gën jaa rafeti mokkiin bind ko ci gën jaa xereñuk bindiin jàng xam-xam ci way juram woowee mottalee njàng moomee ci xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi doonoon koo xam ne ku teeloon jaay ak taalibeem ak ak ak mbokkam jëndee ko taalibe ndax ku teeloo na taqoog sëriñ Tuubaa la musta weranteeg moom mukk léppam da koo defoon ak taalibe àndoon ak moom ca sëñ Tuubaa doyloo woon ko lool doyloo gooke ko sëñ Tuubaa doyloo woon bokk na ci li nga xam ne moom lañ gën a mën a seede te def ngeen ko ci kayit yi sëriñ Tuubaa xam ngeen ne pàkk bi ko loon ci kaw suuf mooy bàkkub Tuubaa jamono yi nga xam ne ci la koy seet ba suñ borom wan ko ko sëriñ Ibrahima sa nee na guddi gi nga xam ne Serigne Touba fanaan na ko ci taatu béb gi booba mbaar amugu fi woon dara amugu fi woon ab sëriñ lañ ko tiimale woon ba bët set bokk na ca ñooñee nga xam ne ñoo ko teeyaloon sër ba ba nga xamee ne sëñ Touba jox na leen ndigal sëñ Touba léppam da doon alxuraan sëriñ Touba jàngaloo leen alxuraan bokk na ca moom ak sëriñ ma yaasin ummi jàng mi nga xam ne moo doonoon sëñ maami sëriñ Modou Bousso jàng kenn ko nañ mu téeloo la ci lafu sër di la jàngaloo alxuraan sëriñ Ibra nee na bañ demee ba fajar gi xar kenn ku ne jàng nga fanweeri isib waaye mu daal di génne ab doomu guro xar ko kenn ku ne mu jox la aw ngàdd ne ki tàmbali woon bàqara mu ne ko saral wuti mm, euh, naasi ki tàmbali woon ci ci ci mariam mu ne ko tàmbali waatal ci bàqara biñ demee ba fajar jot ñoom ñaar mm, wàcce nañ ñaari kaamil nee na sëñ tubaa mi ngi ci biir mbalaan mi nee nañ dëgg nañ dënn bi riir waaye xamuñ lum doon wax bokk na ci jagle gu ko sëñ tubaa jagle woon juróom benn weer wala juróom-ñaari weer yi nga xam ne moom la sëriñ Touba doon wër pàkkub Touba gépp doyloo woon na sëriñ Massamba Faty moom nga xam ne ndox mu mos a jëfandikoo moo xam mu muy jàppale wala mu naan ñam mu mos a jëfandikoo sëriñ Massamba Faty moom yi moo ko ko rootal wala moo ko ko toggal kon loola cër la boo xam ne sëriñ Touba moo ko ko cërale woon taxoo gim taxawoon ak moom nag taxoon nag mu may ko martaba bu kawe moo xam ne. tiim na mbooleem njaboot gi nga xam ne ñoom la sëñ tubaa jaboote woon ca bokk na ca loola jamono yi nga xam ne sëriñ tubaa ngi daaru salaam daan fa jóge di ñëw ci àllub tuubaa te tasanteeg sëñ moodu moustapha gane àddina ca ñiw yëg yabal ndaw ci sëriñ tubaa xamal ko ne ko soxna amintaloo am na ndaw am na gone sëriñ tubaa dafa geestu sëñ samba faati ne ko soo demee nga defal ko li ñuy defal gan sëñ samba faati daa dem def ci la ca war lépp kookee bi sëñ moo Modou Moustapha demee ba mu kallaf sëñ Touba woo na ko ba mu ñëw mu ne ko sa baay sàmba day am na kóllëre gu ngeen seq goo xam ne moom rek la la ko suñ borom suñ borom boole loon ndax keroog bi ngay ñëw ci kaw suuf day mel nu moom moo xamoon fu ma nekk ci àll bi te moo ma wër ba fekk ma nekk mu xamal ma ne ñëw nga ci jamono te moom laa joxoon tur wi nga xam ne moom lañ la war a tuddee ngir mu andil andi ko kon nag damaa bëgg nga dem ba ci moom. digal ko ay ndigal yoo xam ne ne ko soo demee na nga ko defal nangam ak nangam ak nangam sëñ Modou Moustapha bég ci ndigal loolee lool ba nee ne sax dafa yëkkati ab lim jox ko sëñ Touba gërëme ko ngir ndigal loole mu ko digal kon kookee martaba kawe na lool sëriñ boobu itam doonoon na koo xam ne suñ borom mayoon na ko jële ko ci sëñ Touba ndax sëriñ Touba day amoon na ñaari sëñ Mbacke Bousso amoon ñaari sëñ Masamba maanaam sëñ Musoobe amoon na ñaari doom yu tudd sëñ Mbàkke Buso am na ñaari doom yu tudd sëñ Buso euh, sëñ sëñ euh, sàmba Masamba sëñ Mbàkke Buso moom mooy menn mu mag mi buñ ko waxee rek ñëpp xam ko waaye beneen mi ñu ngi ko daan dàkkale sëñ Masamba Faati sëñ Masamba Kanni sëñ Masamba Faati mi ñu koy dàkkale sëñ Masamba Faati biñ demee ba nga xam ne ci coobare yi sëriñ Touba euh, suñ borom xéewale na ko mu am cir boo xam ne. da ko donne woon ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax seexul xadim fa muy waxee ne muhammadun tabibina alhakimi ndax suñ borom joxoon na ko diggante ma yontu bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko daan fajal mbooleem lépp loo xam ne tawatoon na ko sëriñ Tuubaa nag jëloon na loolee doonoon googee gi mu doonoon ci yontu bi sallallahu alayhi wa woon ko sëñ Masamba Faati mi ñuy waxtaane nga xam ne dafa mujj sëñ Tuubaa sax moo ko tuddoon Masamba Tabib Masamba Tabib mooy Samba docteur nga xam ne lépp loo xam ne sëñ Tuubaa soxla woon na ko ci njabootam lu docteur waroon a def moo xam ci saahir wala ci baatin daana jox sëñ ma Masamba Faati ndigal mu di mu di ko taxawe ci wàllu googee kon noonu la féete woon sëñ Touba sëñ Touba it féete woon ko fu kawe foo xam ne néewee na fu ko waa féete nit ndax diirub li lim ànd ak sëñ Touba at yi mujj yi nga xam ne moom la sëñ Touba nekk njaareem joxoon na ndigal sëñ Masamba Faati moom i ne ko may naa la at mu jot na am ñaari weer yoo xam ne. bu sëriñ Touba jullee fajar ci jàkka ji sëñ Touba dana dellu fa muy fattu ma Masamba Faati dellu ci ab dalam bu sëñ Touba jullee gee ba noppi dana àndaat ak sëñ Masamba Faati fatoog moom ci keesam ba julli fajar jot ñoom ñaar ñu ànd julli si lañ daan wax nag ñoom rek ñoo ko xam waaye loola bokk na ci li nga xam ne cër bu mag la sëriñ Touba it daan ko wax ne ko ma Masamba de am na lu ma jaaxal ci yow mu ne ko Mbàkke loolu na mu ne ko damaa gis rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam day saa yu mosaan toog ak man su kenn nuyoo rek rasulullah sallallahu alayhi wa sallam day dem bàyyi maa kooka waaye yow bu fi sëñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkee boo nuyoo du tax mu jóg sëñ ma sàmba faati sëñ tubaa ne ko ndax bëgg nga ma war la muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëñ ma sàmba faati ne ko man day mbàkke boo ko dee gis ma di la gis rek doy na ma loola kon xam nga ne jaay ak ak ak mbokkam jëndee ko ak taale bi mënut a weesu loolu ndax xam nga bu doon kaneen mu ne ko wan ma ko mu gis ko ndax bu ëllëgee fuñ fu mu nekk ne gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye gis gam daan gis sëñ Touba rek doy na ko sëkk sëriñ boobu bokk na ci jagle yi nga xam ne moom la ko sëriñ Touba loon bi sëñ Touba bi sëñ Mbàkke bu sa bindee ab kaamil boo xam ne bu mu fonkoon la jox ko mu yenoo ko fii yóbbul ko sëñ Touba ci gànnaar daa fekk sëñ Touba gànnaar ak Ceyeen ak Njaareem ak mu sëñ Touba mosaan fekk ci senegal nekk ci senegal sëriñ Mbàkke bu sa sëñ Masamba daana fa dem yoon yoo xam ne yenn yi sëñ Touba moo koy woo. wala yenn yi sëñ Mbàkke Bousso moo ko daan yónni wala yenn yi moom moo amoon ak nim sa dem di siyaareel boppam sëñ Thierno Bousso mi nga xam ne tey moo fi wuutu sëñ Mbàkke Bousso daaw nettali ne ma nee na ma ki nga xam ne mooy doomi sëñ Mbàkke Bousso di sëñ Moulay Bousso keroog bi ko sëñ Touba bi ko sëñ Mbàkke Bousso di jébbali sëñ Touba tam bind ab kaamil sëñ ma Samba Faati la ko booleel mu ñëw fekk sëñ Touba njaareem jébbal ko doomi sëñ Mbàkke Bousso joojee nee na keroog sëñ Mbàkke nee sëñ Touba nee na ko ma sàmba day yow ak sëñ Mbàkke Bousso bileen suñ borom di bindee sama jëmm jee tax kon xam nga ne loolu lu kawe la ne ko bi leen suñ borom di bind sama jëmm jee tax waaye nag rëccuwuma lim li ma doon booleeg yéen kon sëñ sëñ sàmba Faati ku amoon wàccuwaay la ci seex seexul xadim doonoon koo xam ne nag ku ragaloon yàlla la ku amoon xam-xam la waaye ragal yàlla gaa xam-xam gaa doo nekk gam doomi soxna yëpp da koo laxasaali woon koo ko def ko ab liggéeyukaay ndax ku sëñ musóobe di si wayjur de ku sëñ bu Buso di sa mag joo bokkal lépp bu fekkee ne gis nga keneen koo teg bët kon kooka xam nga ne am na lu nekk ci moom ndax yonent sëriñ Tuubaa day nam seetloo suñ borom ba naan ko antal xawi yu wal xawi yu awlaa yow yaay ku am doole ki te ku am doole rek moo mat moo mën moo mën a doon sama patron ku am doole rek mooy sama cëslaay ku am xam-xam ku am wërsëg ku am lépp kooka ci laa mën a wéeroo moom itam ginnaaw ba mu wéeroo ci suñ borom foofu la fekkoon sañ Touba mu teg ko foofu jëloon sëñ Touba muy léppam daan mu nekkoon royukaayam daan ko liggéeyal saahir ak baatin waaye la ko daan liggéeyal yépp daray àddina taxutoon mu doon ko ko liggéeyal li taxoon mu koy liggéeyal mooy lan am ngërëmul suñ boroom waaye am ngërëmul seexul xadim keroog bi nga xamee ne sëriñ Touba nopp na ci moom nga xam ne sëriñ Touba képp ku mosaan nopp ci moom ñu ci bari daana leen wax lu ngeen fàggu ci li li ma leen war a li ma leen war a defal sëriñ tubaa xamaloon ne ko ne Masamba de daal di koy tudd kenn koo xam ne ku kawe la ci yoonu murit ne ko diw diw day tolloole naa la seen doole ci saahir ak baatin waaye lu mu ko tont def na ko doole jooju damaa bëgg nga dencal ma ko ba ëllëg ndax foofu rek laa soxlaa doole kon ginnaaw waxtu wi jot nañu bokk na ci li ñu suñu ibra sawoon daal ëppoon na lii waaye ginnaaw waxtu wi xat na ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal seen liggéey bi suñu borom nangu ko te bu ko nangoo yàlla na ko booleeg liggéeyub sëñ Tuubaa mu laqal leen ko foo xam ne yàqu du fa yegg kuréel gi nga xam ne ñoo taxawal liggéey bi di xoratul ay nit sëriñ Ibrahima Bousso nee na ndaw yi nga xam ne ñoo taxal laxasaay du liggéeyal seen maam jooje di sëriñ soy bu ngir sàkk ngërëmul sëñ Tuubaa yàlla nañ ci am lu kawe seen njort yàlla na leen yàlla dëgëral ba yeneen bis yi yëpp benn bu ne gën a rafet bii ngeen def wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi dawi ridwani wa tamkin asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi nuyu bokki bokki mbusoo bi yëpp ak bokk yi fi daje yëpp ak taalibi yëpp ci turu sëriñ Cheikh ak njabootuk sëriñ Sohaybu bu gépp wala bokk ci turu Cheikh Sidil Mokhtar ak njaboot ko Cheikhul Xadim gépp di leen dalal ci pàkk bii nga xam ne ci pàkk pàkki Cheikhul Xadim yi la bokk di pàkkub alquran di pàkkub leer ak barke ñu dalal fi gan ñu tedd xam naa lu jar ñu ji sori ndax ki ma jiitu moom yax na maa egsi waaye mel na ne li ñu war a wax lépp wax na ko waaye man damaa waxoon sëriñ Abo mii ne ko buñ tollee ci sëñ ma sàmba rek nag ma ko yëgal lu mu xat-xat ci man mu ñëw barkeelu ci ndax xër guma ci xër ak xam guma yàlla xamal ci moom tuuti moom <clears throat> ku ko bëggoon a wone portaleem rek ngir mu gaaw moom da ngay njëkk wax ne sëriñ bu sóobe mook soxna jaara bokk lépp te moo ko jur soxna faati waajuram mooy taaw ball ay sa waaye yàlla dafa may sëriñ bu soobe lu rëy mooy doom judul wàll yu amu ko waaye moom nag dafa yëmut ci di wàll rek day murit saadix boo ko doon misaal rek da ngay wax ne sëriñ Masamba faati sëñ Mbàkke bu su ëpp ko xam-xam gënu koo sàmm Seex Ibra Faal ëpp ko taalibe bi gënu koo bëgg sëñ Tuubaa loolu rek mooy sëriñ Masamba faati sëñ Abdul Qadir moo ma waxal boppam ma bi sëñ bi sañcee dëkk bi fii sëñ bi nekk tey ci mba ci mbéb gi daara yi bii ji fi njëkk a def sëñ Masamba Faati moo ko jiite woon ak sëriñ soxna sëñ Mor Soxna ak sëñ Mat Saxeer Mbay ñoom ñett te sëñ Masamba Faati moo jiite woon daara yi tër bii kon ni ko sëriñ bi jàngale ni la ko yare ni la ko tërbiyaa ba ni muy bëgg ab murit mel ni mu mel ni nga xam ne buñ doon laaj sëñ bi ñu nga defar ba noppi ci ñoom nu ñuy mel mën naa génn ma sàmm ne xoolal kii kii noppi naa ci moom ni ma bëggu mel ni mel na ni kon nag amut lenn luñ ciy waxati lu weesu yàlla na nu yàlla taas ci barkeem te moom dafay koo xam ne dafa bokk ci borom cër yi nga xam ne nekk na fi ba jóge fi te kenn xamut ci moom dara dafa sartante woon ak boroomam sartante woon ak sëriñ bi ko yàlla booleel ab cëram dara du ci facc dara du ci génn ba keroog muy dem yowmal xiyaamatil akbar kon nag loolu feeñ na ci njabootam ba ci bu ngeen xamee sëñ Muudu xarifaa ñang mi fi ne woon ni mu meloon ci sariya ak ci sunna taalibe gaa ko raw te loolu jeexi dal na ci sama doomi jaay yi sax lay ñàkk ñàkk solo taalibe gi moom duma leen ci xet ñu ñu amuk taalibe lañ kon nag ànd duñ joxe mbubb sax waaye nag taali bi moom moom ci deret jële ne suñ ñu ko bañ kon suñ sëñ Massamba Faty daal mooy koo xam ne yoon yi war na koo xam bu baax te bàyyi ko xel ndax ba dara du dara moo àndoon ak sëriñ bi sëriñ bi daana wax suñ mbàkkee ne ko war ngaa sant Massamba bu baax loo am ci man sante ko ma sàmba ndax bi sëñ bii nekk Mbàkke ba Mbàkke Bawal dafa fi suñ Massamba téye ko lu yàgg suñ bu soobee ne ko mu Mbàkke doo seeti Massamba mu dikk di ko jël si mu ne ko yow moomu laa soxla woon xam ne bu fi yàggee da nga ko jël si far téyewaale ko téye ko fa ñetti at di ko tërbiya suñ Mbàkke daana wax ne maa ngi ñëpp a yemoon nit rek laa woon dama daan lekk li ñëpp yi lekk tol ne mbër yi waaye moom a jàpp te ma ba ba am nen mënuma koo weesu ci bis bi ba même ba sama yaram mel nii kon muy si sëñ muy loolu déggee leen ci ne fu ne la fa ne tañ di ko ndamoo te tañ tànn ko te muy lu baax sëriñ bi rek ko fa def keneen defu ko fa wasalaamaaleykum Cheikh Xadim barakatul lasil wujud wal xidam xal wa jabalu lana dunil xidam salaatul lazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala mahin mal absa wa safar